mbokk yi baaxoo di teew lu euh, xibaaru Bambouk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. actualité nationale. syndicat de l'enseignement professionnel et technique muy kuréel googu ëmb yenn jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu professionnel bi ñoom daal daal di ne fas yéene nañ euh, lii tubaab di wax jàll ci vitesse euh, supérieure loolu nag ñu ngi ko ne gannaaw ba nga xamee ne niki altine bi daal di nañ def li nga xam ne mooy débrayage. ngir continuer wéyal seen euh, plan d'action bi ni ki tey mardi euh, fas yéene nañ def li nga xam ne mooy euh, grève générale ngir gën a wan nguur gi ne ñoom revendication yi nga xam ne ñu ngi koy topp di ba léegi nguur gi indiwu ci benn saafara ñu mën cee lim li nga xam ne mooy carrière enseignant yi nga xam ne gis nañ ne amul benn avancement te proposition yi nga xam ne daal nañ koy def seen plateforme revendicative yi gis nañ ne nguur gi daal du si jël yenn matukaay ci communiqué bi nga xam ne euh, daal dinañ koy euh, eggee ñi nga xam ne mooy Dakar Actu ki nga xam ne mooy secrétaire général di Amar euh, kan daal dinay xal liste point yi nga xam ne ñoo waral li nga xam ne mooy seen grève wala boog mooy seen banque yoxo yooyu association Guné de Kolda ñoom nag daal di nañ fexe ba lu toll ci mille quatre cent cinquante daal di am li nga xam ne ñooy ay këyit loolu nag ñu ngi ko amalee gannaaw ba nga xamee ne daf na ñaari fa ci jan programme boo xam ne ñu ngi ko dippee. Euh, droit des filles une à une éducation de qualité et sans violence maanaam fexe ba jigéen ñi daal di am euh, droit am éducation boo xam ne du am violence te aussi ce sera une éducation boo xam ne bu am njëriñ la te bu am qualité la projet bi nag ñu ngi ko amal fële ca euh, département bu Kolda foofu ñu naan ak Medina Yoro Fula te bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne mooy deuxième phase bi toll lu toll ci huit cent élèves daal dinañ leen wutal li nga xam ne mooy extrait de naissance ak 550 yoo xam ne pour le département de Kolda la 143 yi nekk pour le département de Médina Yoro Fula ci ñaareelu phase bi ba léegi fas yéene nañ yaatal mbir mi ci lu toll ci 43 établissement euh, polarisé yoo xam ne dinañ fexe ba 40 écoles élémentaires daal ci gis seen bopp waaye aussi lu toll ci 3 euh, collège seen kuréel googu na lenn rek ko tax a jóg mooy fexe ba ndaw yi nekkee foofu ci région wala boog ci euh, Kolda foofu ñu fexe ba am li nga xam ne mooy ay kayitu euh, juddu gannaaw loolu ñaar ci conférence de presse bi nga xam ne euh, coalition wallu daal dina koy amal ci siège bu PDS leader yi nga xam ne nag daal dinañ fay teew gannaaw bañ defee analyse wala boog jàngat bu baax ci élection locale yi ñu jógee. ñoom nag euh, liñ fas yéene daf mooy daf benn bloc ànd ak yeneen opposition bi rawatina la coalition Yewwi Askan Wi ngir dem ensemble ci législative yi ngi ñëw ngir mën a imposer ñi nga xam ne ñooy nguur gi euh, liñ naan cohabitation loolu nag euh, ñu ngi ko def gannaaw ba gisee ne vraiment ñoom ànd opposition bi mooy seen ndam te moo leen di tax ñu am majorité bi foofu ci assemblée nationale pour mën a contrôler bu baax wala boog exiger. li nga xam ne mooy cohabitation avec nguur gi nga xam ne jamono ji moo fi nekk loolu nag ñu ngi ko fas yéene daf gannaaw ba nga xamee ne élection législative yi lu toll ci six mois rek moo des ngir mu agsi la coalition gëm sa poli gëm sa bopp la ñuy des ak politique ba léegi gannaaw ba nga xamee ne gis nañ ne instant bi moom ñëpp reconnaître nañ ne am nañ force politique la fii ci réew mi gannaaw ba nga xamee ne ci résultat élection locale yi nga xam ne génn nañ ci te ñoom ñu demal seen bopp daal dinañ am euh, mention bu baax a baax gannaaw ba nga xamee ne daal dinañ fexe ba au niveau national ñu daal di am lu toll ci 633 euh, conseillers municipaux yoo xam ne daal nañ koy am loolu nag ñu ngi ko am ci euh, juróomi communes yoo xam ne tamit daal dinañ koy teg loxo mu bokk ci Médina. Rufisque Ouest ak li nga xam ne mooy Samekanta Koussi foofu nekk ci Sédhiou. waaye aussi saare bii ji nekk ci Kolda yëpp cinq communes yooyu yëpp euh, la coalition gëm sa bopp moo ko daal di gagné loolu day firndeel encore une fois que ne fii ci Dakar euh, ki nga xam ne mooy coalition gëm sa bopp mooy troisième force politique gannaaw buñ génnee li nga xam ne mooy yeewee askan wi ak Benno Bokk Yaakaar. actualité internationale. ci actualité internationale la ñu àddu ak euh, woote bi nga xam ne ministre malien de la communication woo na ko euh, correspondant yi nga xam ne de la presse étrangère yi nga xam ne nekk nañ foofu euh, ca Mali loolu nag mu ngi am gannaaw ba nga xamee ne collectif bu ñuy wootee pour la défense des militaires daal dinañ joxoñ baaraamu tuuma correspondant RFI ak France 24 yooyu ne euh, dañuy daal yàq xel askan bi li tubaab di wax désinformation ak désintoxi euh, intoxication dañ koy def ci xibaar yi nga xam ne dañ koy daal di jibal rawatina ci problème yi nga xam ne am na ci Mali moo tax euh, ñu daal leen woo te ñi nga xam ne ñooy nguuru nekk jamono ji ca Mali daal di nañ sàkku ñu daal di nangu li nga xam ne mooy accréditation yi mooy liy firndeel wala boog liy tax euh, journaliste yooyu mën a exercer mën a liggéey bu baax foofu ci Mali fas yéene nañ koo nangu euh, rawatina nag ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci réew moomu ñu naan euh, France. loolu nag mu ngi ñëw gannaaw ba nga xamee ne réew Mali daal di nay woo ki nga xam ne mooy ambassade France bu nekk foofu daal di koy wax mu defar bagage am di dellu ci réewam gannaaw ba nga xamee ne daal di nañ koy may ñett fan ngir mu mën a jugee foofu ca Mali daal di ñibbi France. sport. ci wàllu sport la ñuy àddu ak demi-finale bi nga xam ne war na am ni ki yi ci diggante Égypte ak Cameroun nouvelle bu naqari bi nga xam ne nag waa Égypte daal dinañ koy jot mooy seen meilleur jour ñoo gën koo xam ci Mohamed Salah euh, nekk. ki nga xam ne mooy porte équipe bi dañ koo daal di euh, déclaré positif ci euh, coronavirus muy sor boo xam ne Égypte daal dina koy subir gannaaw ba nga xamee aussi ne Comores euh, ba ñuy football ak Cameroun lu toll si fukk ak ñaari personnes yoo xam ne daal doon nañ leen déclaré positif ba tax na ñu amoon ay jafe-jafe yu baax pour mën a football ak ñi nga xam ne ñooy waa Cameroun. Euh, bii nag waa Égypte seen meilleur jour bi lañ daal di wax ne dafa euh, coronavirus ba tax na presse bi ñu bëri ñu ngi yëkkati di wax naan Cameroun dafay euh, def liñ naan tricherie te loolu jàpp nañ ne mun na indi ay coow ak jafe-jafe ci li nga xam ne mooy mujjantelu kaan bi. lii lañ leen indi loon ci seen tënkoom xabaar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox di daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.